jotee ni mu ngi difficulté comme ni nga ko waxee rek bu fi pièce ñi xëy na amoon nañ bi ko su yooni construit bi sax am na ñuy wax ne dañ bëgg xaar ba nawet bi laal euh, euh, jot ñu jeex ñu laal ko pour deferaat ko boo di wax ngeen ko fi léegi lu jëm ci wàllu buñ ko war a defer yàggaay bi ñan ñoo ko war a defer ñan ñoo war a xam ne yoon bii nii euh, baax pare na war ñu war koo jëfandikoo ñaata at lañ ko war a jëfandikoo ndax defer ko at juróomi at mu ñëwaat yàquwaat nit ñi di sofowaat su lan nga foog ne moo war a nekk solution ci jafe-jafe yàgg bi nga xam ne askan ñu koy dund ci ci wàllu yoon nga am président boo xam ne nekkul rek politicien yu nekka si opposition ak ñu nekka si nguur gi ñoo koy am ñu si ëpp doole si ñoom kenn du si wax dëgga en loolu moo nekka réalité xam nga tey ñu nekka opposition ñuy castigate the same people ñoo doon defend some of the policies yu government bi def in 2016 right because gis naa sax si sa topic bi bokk na si ñoom maat yi ñu ngi laajte 57 people you know and man UDP uh, as a party NPP as a party duñ musa mëna taxaw in parliament and debate about these issues parce que ñom ñom ñoo si agree woon and they defended it in 2016 so pour man tali is the same thing politicians ku ñëw lu mu laa su ma tali and man I said this lu man mënuma bokk ci political party is two reasons one dama gis né man political party su amuté agenda lo nga jama programme bot nga ma jaay ki jangut, ki nangam education is important but man I've always tell people this since 1965 ba tey Gambia demut kanam lu ñun ñuy dellu gannaaw is the educated people the educated class la parce que lañ dénk nguur muy nguuri Jawara muy nguuri Yaya Jammeh muy nguuri Barrow is the same people so pour man foog nga am president bo xam ne nii tey soo buggee développe comme ça lu mu wax rek gis nga nit ki soo buggee def loo xam is for the benefit of the majority hmm. parce que lo def everything lu ñëpp d' accord mënta nekka for example ok man dam day gis yu bëri daf day ñëw mu nekk national issue and people want to politicize it for example ñu ngee génnee nit yi si peggi tali hmm. ñu bëgg koo def place yi jaayekaay ok yërmande ku nekk mun naa wax yërmande yërmande lu nekk dañ foofu la ñëw dundee booy jaaykati drogue bi sax si drogue la moo dundee jaaykati taay bi si taay la moo dundee soo dañu war a wax ne because of kii mu ngee jaay drogue oo mu ngee jaay taay si loolu a bàyyi non parce que dëkk soo foog nga foog nga am policies and nit itam xam ne lii hmm. moo war a nekka lii war a mën a nekka parce que tamit dem rek jël sa table wala dem jël corrigate rek ñëw daaj ko si peggi tali bi koo def bitig on sanga waaye si yaa ngi am marché bi du demee noonu so pour man number one man lu Kurang wax loolu laa agree and man I've been echoing this for the longest time dëkk bi foog ñu am 50 years or 100 years development plan road map boo xam ne ni yow président bi ko bind daf laa óor na yow 10 la fi fekka hmm. waaye yet still government continuity la because su nekkee government bu nekk su ñëwee dafa indi policy boo xam dëkk bi du mus a parce que si lu ñoo nekk rek mooy tey ok maybe let's say from independence su nekkoon ne PPP euh, government bi dañ defoon benn hundred years road map ñu def plan ne ok am nañ draw nañ master plan before even ñu jox nit yi dëkkuwaay dañu waroon a am master plan boo xam ne for exemple ok ma jox la benn exemple OIC bi fu mu jaar xam nga am na building su bëri yu nekk close to the dañ encourage on road si place yoo xam ne nii tey dañ ko doon a bàyyi pour reserve ok ñu nekk at the ministry of local government o ñu nekk si tourism industrial area bi ñu ngi koo luxu luxu ñu ngi ko jox seen xarit yi and these are all issues yoo xam ne nii tey dañ ko war a xoolaat bu baax manasan nga so pour man government dafa war a dem ut ay engineers there are Gambians yoo xam ne ni ay engineers lañ maybe nekkuñ biir Gambia fii some of them are working in the West mën nañoo jël ñooñu ñu ñëw ñu xool dëkk bi ñu wax leen ñoom like the president can tell them what his vision is about the country in fifty years time in hundred years time ok ñooñu mën nañ koo project ñu defoon imaginary design of the whole for example ñu ne ok dañ bëgg a defaroon Banjul mu nekk dëkk boo xam ne tey nii moo mel in fifty years so tey suñ ko designé nit yi dañ war a am comme lu courant wax building policy bo xamni tay suñu ok si pegi tali bi képp ko fa bill this is the kind of structure ngay bill understand nga lolu government moo implement policy boobu man tay awma ma right non pour ma ñow mané ki façon building bi la wara sam on da nga dem fi day nga gis ki mu sampa man ma nekk ci line bi keneen mu ñëw sam mu sampa sam mu dugal 5 meters ok nga dem si kër bi fence bi mu ngi ci biir kër bi la fence bi mu ngi ci biti understand nga so so bëggé wax né ba suñu la moy ah man duma ko mëna a xam nga suma waxé fi dañoo lifin understand mm. o nga call yi nga xamné sax ñoo war a ñëw enforce loolu mu ñëw waa ji mu génnee baaxa mu jox leen ñu dem dox seen soxla ba pare ne la diw moo ñu kool sax wala naa nga am ne soo yaa ngi indi jaxase sax si diggante but man I tell people man I don't care about ne moo nekk di right thing su dëkk bi yëpp toonoon agence bi man dëgg bi fu mu foofu laay taxaw parce que xam naa ne loolu moo nekk di only thing luy last long so Gambia nañ bàyyi affaire yi naxante ñu bàyyi affaire yi neexalante politiciens itam ñu bàyyi because da nga vote nga gis for example Kanifing municipal council ñu ñew ñu ne dañoo implement mais bi jël nit yu nekk ci mbéda bi yëpp dugal leen ci biir marché bi parce que nit yi mënuñoo am excuse ne marché amut boy marché bu nekk sukuta mu ngi fa yaa jëmee mu ko bil depuis kañ ba légui kenn demul occupy ko so dañ ma bëgg wone marché so dañ ko bay nonu like that sa nga okay nga dem na market there are a lot of places yo xamni tay nit yi so duggé ci biir marché bi sax pour nga am yoon pour dox freely nga mëna sop is a problem because lutax niti ñu ngi bañ dem Burfoot o ñu ngi bañ ñu ngi bañ dem euh, Sukuta o ñu ngi bañ ak market bi ñep everybody mu ngi dem bir biir nda market legi dem nañ ba berabi, bi so moto ya ngay ñew pour nga cross traffic bi area bobu non sa atten certain time of the day it's a problem okay so demee di order yon bu dem syndicat bi ñoo fofu mo moto sax léegi possibilité sax mënatu fa dem xëy na maybe sax move clinique bu nek Serekunda foofu yóbbu ko because at the end of the day even ambulance su pour mu jala fofu non is a problem so man lima gis gis mooy government dafa wara tok mu wax ak ci dega moy ne ñun projet ah, development plan bi lañ am for the country dafa difficult But this is how much we need. We need a hundred billion dollar. Gambia does not need to have a hundred billion dollar pour mu embark on that journey. suñu amé programme bo xamni like is marketable is sellable trust me there are billions and billions of hedge funds yo amna ñu ngi tegee félé xam nga lan la gaay di xaar ku am bankable project boo xam ne mun nga koo present nga defend ko but the sad thing moo like okay if you have a fii nit ñu ngi employé ou ñu jëlee ministers ou ñu dee jëlee I can understand politician lañ ya ma support ma win election so dama laa jox even though xam naa ne mënuloo bindaat nothing about lu ma laa jox still I will put you there so loolu tam is a problem so moo tax development dëkk bi su bëggee develop nañ jël ku nekk li nga xam fi nga mun ñu teg la fa du affaire yi kii moom ma support gis nga falu yàlla moo ko yore dëkk bi yëpp suñ ñëwoon ànd ñu ne dañ laa xee doo falu billahi yàlla su la bëggee fal da falu kenn mënu si dara so politicien si foog ñu am gëm-gëm boobu noonu du dem mbooloo am 200000 people yuy génn mooy tax ñu sànni la carte non people can follow you election day ñu dem sànni keneen parce que yàlla moo yor xoli doomi aadama yi mun nañoo dem ba si biir box bi ñu bëgg ko dugal sa box ñu mistake dugal ko si beneen box ne xay man kii laa bëggoon a sànni but loolu waaye dëkk bi suñ ko bëggee develop nañ ut the right people ñu pour lañ at the right place whether they support you nañ bokk sa parti ou bokkuñ sa parti déglul lu ñoo wax hmm. bu la kenn gëmloo ne kii opposition la hmm. oo kii bëggut la oo kii daf la support loolu moo dee rey suñ politicien si daadam di dee yow soo ba nekkaatuloo fa ana yaa jëme tey ñu ko doon taxaw di ko wax lu nekka Babili Mansa Nasruddin Mansa everything most of those people bu mu dem nañ UDP dem nañ NPP It's the same thing that is going to happen to Barrow. It's the same thing that has happened to uh, Jawara. And it's the same cycle will continue. Because when I keep saying this, and when I say some politicians get angry, I said it. Politics do make it. Politician, could dega nga ko lacca lan call the mu ne man politician la political entrepreneur the highest bidder will always win and Gambia you want to gain a politics You focus more on development it doesn't matter fan la nit game. and government needs to empower